état boko ko yore da ngay da ngay da ngay da ngay am tous les services techniques ñuy liggéey ak yow nga mëna sax wo des expertises externes ñoo xamné duñu état privé lañu muy privé national muy privé international. diagnostic bi buñ ko défé diagnostic bi man tay suma suma su def diagnostic bobu laay jëlal parce que diagnostic bi baax na wax nañu situation inondation Sénégal yépp génné les villes aligné leen sax trois catégories.

kon kuy ah, ku am dégg-dégg dama ne suñu ni inondation sur la base du plan qui est là sur la base du plan qui a été élaboré par les services techniques et sur la base du budget bi ñu waxoon nga xam ne 6 imagine su 100 ou comme il ngi a un an et demi mois, de Ce 80 du budget du gouvernement ko l'inondation. inondation yi foog nga ni dañu inondation donc problème bi foofu le poser. Ce pas les les solutions théoriques mais c'est à l'application pour que Macky Sall deuxième question bi euh, nee na ndax dañ ko prévoir woon man man wax dëgg yàlla liggéeyuma météo euh, du lii du sama spécialiste mais dama ne ku yor état

donc loolu ñu def première année bi 2012 première année bi 2012 2014 nous avons nañu 32 euh, milliards d'affaires. 32 milliards vous ñu jógee 2014 2016 nous def 8 milliards kese 2017 2022 euh, ñu def 8 milliards kese donc nous avons moo tax à un donné ñu arrêté li ñu doon def bàyyi li di woon farata nekk ci problème maintenant mu ne qu'est-ce que je fais à l'Assemblée nationale xam nga Assemblée nationale institution la institution bi dans sa globalité am na problème sénégalais boo laaj na ne man Assemblée nationale jéwul rôle bi mu waroon jouer mais dès ni député yi nekk Assemblée nationale yëpp jéwuñu seen rôle man de jàpp naa ni maa ngi joué sama rôle ndax lii ma def tey sax mbirum député la dem naa ci population yi wax ak ñoom bi ma paree gëstu naa mbir ba ba mu leer ma ma ñëw taxaw leeral askan bi loolu loolu député la ñaata député ñoo koy def donc man la ma war a def assemblée li taxoon ay nit wóolu ma ba yóbbu ma fa maa koy def te amul sénégalais bu ko mën a wér gëw ko bokk boole ko salaire bàyyi ma assemblée nationale wax ma ko pour bàkk waaye ku jël deux tiers ci salaire am jox ko ay œuvre philanthropique xamal ni du salaire ñay séddoo xaalisu assemblée nationale di séddoo caisse noire bi di séddoo mission yi tout le temps ñu ngi entre deux avions député am na député yoo xam ne sax dañuy dem Dubaï remplir seen i conteneur ñëw di jaay biir assemblée sax léegi dañ fay jaay am na ñu fay commerce ñooñu ngeen war a laaj lan la ñuy def assemblée nationale mais man li may def assemblée nationale askan wi gis euh, Ndiaye nee na ndax ñu ragaluñu isolement solde woon la question est Nous, Nous ñun ci isolement Nous ci isolement parce que nous sommes ñu gëm politique nous politique nekkal ci dëgg di jëf dëgg di wax dëgg ndax nous kenn que nañ ci Nous avons nous d'ailleurs ñu ngi ci coalition

nous restons ouverts à tout le monde mais ragaluñu wéet wéti dëkk parce que bëgg and ak nit tubaab dana je préfère marcher seul que mal accompagné te askan wi kenn mom ko ñu ngi sétu ñi ngi xol ñi ngi sétal na kon lolu c'est pas problème Mais nak ci problème bi ci question bi wéetuñu ci nak. opposition bi am nay position waaye ñu suñu position wéetuñu si moo tax front bi ne ñun mënuy jël position ci lii parce que am na ñu ne lii am na ñu ne lii ma fàttali lan moo newoon suñu position d'abord ñun suñu position du pour ànd ak Massamba wala xeex Mademba ñun ci principe la ñuy doxee am na ñu ne Sonko vote diw wala Sonko combat diw déedéet ñun dañu ne benn jàpp nañ ni échelon bi gën a pertinent mooy échelon législatif élection législative parce que élection législative ngay génn ñu ne kii am na nangami député kii am na nangami député dem leen assemblée nationale ngeen def foofu du dialogue politique yéenay voté les lois yéenay voté euh, euh, le le budget yéenay contrôler l'action du gouvernement ainsi de suite kon foofu le débat démocratique bi di am pendant cinq ans dans dans dans les régimes yi mu am li ci ëpp boo seetee ci assemblée nationale lañ koy joué élection présidentielle dañuy dem def élection mais benn président moo ciy gën. Nous génn président ne bon j'ai un statut d'ancien candidat donc man maay ben président moo am ñeneen ñëpp dem takkuwaat préparer beneen élection kon munoo munoo laajte statut foofu ñaareel ñu ne quel que soit échelon bu jël parce que ñun ça nous intéresse pas tey suñu ma chef de l'opposition ma ne leen suur parce que man bëgguma je ne veux pas être décrété chef de quoi que ce soit ñu ne kon bu mënul ñàkk ba mënul quel que soit l'échelon, nous sommes nous parce que la constitution des fois, nous avons voté en 2001 2001 la Abdoulaye a les droits de l'opposition 2016 fait un référendum Nous avons ci quelques points mais nous avons voté une loi pour dire ni la war donc êtes 2020 en 2021 nous ñu voté loi loi à partir des prochaines élections, nous mun voté entrer rétroagir pour des élections est passées c'est ça notre position et nous Ce n'est ni pour Massamba ni contre moi. Et ça, vous nous avons la nous nationale de enquête parlementaire audit beaucoup. audit euh, des entreprises spécialisées qui audit nous produits assemblée nationale ay audition lay def woo ma semb waaw mais nu démé dégg na di et cetera après def ben rapport ñun coalition jot na bi ñu naan audit mooy nañu jël ben cabinet indépendant national ou international mu ñeu def audit nga xamné politique du dugg ci c'est des techniciens purs sur et durs Cour des comptes bi ngeen di gis rapport mais pour des comptes day jël ay auditeurs ñu def audit ñeu jox leen ñu boole ñom liñ doon def def seen rapport c'est ça qu'on a donc on a parlé mais su duggee assemblée nationale rek si politique forcé ne day nekk candidat nangam na li ma ci yàgg tontu mooy benn c'est le combat du dafa am loo xam ne du combat Ousmane Sonko pris isolé man dama gëm ni peuple Sénégal fi mu toll nii moo mënatul nangu te li may dégg li may gis partout mag ñi ndaw ñi góor ñi jigéen ñi le discours est même laa ne le peuple

ak yu non so soo tribunal ñu tribunaux dox moy lolu tribunaux des gens ordinaires mais dès qu'on parle de l'État la justice euh, euh, disparaît Cette justice finit wax état de droit moy un système où l'État est soumis au droit donc fi soo des Macky Sall wala nga de rek justice amatul cour constitutionnelle yoy waxoon naa ko fi ci ak jamono présidentielle réew mu tak ci Afrique cour constitutionnelle bok nañ ci ci ñu ko c'est une responsabilité la moo Mali bi problème bi amé. li ñu a réclamé ñoom c'était dissolution pour cour constitutionnelle li des jaaxle dafa dafa dàq dafa tas cour l'Assemblée nationale. kon nous li ñu le moment venu ce sera le combat du peuple te man gëm naa ni RAU raw 2012 dina fi raw 2011 parce que le peuple ne peut pas accepter que Macky Sall ak li mu yàq ci réew mi yépp la constitution bi mayu ko mu ñëw taxaw daan day def troisième mandat loolu laa ci mën a wax ci lu gàttal la ca des nag kenn ku ne am na ci rôle bu muy joué dina ko joué ci suñ suñ ci tool livre je crois que livre question yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ñoo ngi ci bu soobee la ci fan yi rek dina am luy luy gën